yoon ñu taxaw ki nga xamanteni ni Oustaz Khalifa ababakar ñang Oustaz nuyu nañ la. waaw ñu ngi lay fay soxna si di nuyu mbokk yépp yi nuyu bi nga xamanteni ni lañu yalla ñu yàlla jagleel ñu koy nuyoo ñun jullit ñi assalamu alaykum di ñent baat ñu nuyu bi nga xamanteni ni aljanna mom lañu fay nuyu ñu war ko minal nak suñu bop ñu nuyu ko mbokk téléspectateurs yi ñuy sétane yépp ak mbokk jullit yi ci aduna bi yépp di leen wax ni alaykum wa rahmatullah voilà oustaz est-ce que mën nga ñëw wax tuuti ci guddib Seydina Mohamed bi. waaw wax ci guddi gi dana yomb dana yomb ndax Seydi Aji Malick bindal nañu lu nu wax ci guddi gi. Mhm. waaw bindal nañu lu nu mën a wax ci guddi gi won nañu it ni ñuy màggalee guddi gi wax nañu ko ci benn bayit mu ne ala azimu laylal wiladati xisbatan iza lam yakun naxwal aramu udulu kon nañu màggal guddi yonent yàlla Muhammad teg ko ci sunna bañ ci def dara lu raxul sunna moo tax Tiwaawan boo fi ñëwee lépp lu dëppawut ak sunna fi daaji Malick dàq na loolu guddi googu nag la ñu dëgmal muy guddi jëm ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu koy defee fii nag ci Tiwaawan waaye adduna yëpp ñu ngi koy célébrer macha allah waaye yàlla mu ngi jaarale barke bi ci nitu yàlla bu yi nga xamante ni moo sañ maanaam sañcul dëkk bi sax waaye dëkk bi bu amee barke moo ma tax muy Seydi Aji Malick moo tax naar ba ba mu rombee Tiwaawan na mu meloon bu njëkk ak Tiwaawanu léegi mu ne ah Tiwaawanu Malikin de fii yubnun lil mutayaaminin waaw Tiwaawanu Malick Gueye am na barke léegi waaye kenn defu fa barke lu dul ka ko dëkkee moo am barke muy Cheikh Seydi Aji Malick Sy radiyallahu anhu guddi googu nag la ñu dëgmal ñuy woo mbokk yëpp bu nelaw guddi tey waaw maanaam adduna na door pa léeg-léeg nga gis benn kuréel guy wax dakaar na door waaye adduna daal na door pa tey ci guddi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax nelaw ci nag wóorul tiyaaba ba ca nekk ñu koy fay nga nelaw ci wóorul kon yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Sidi Aji Malick Sy radiyallahu anhu yàlla defit ñu teewe ko at yi bare bari ci barke yonent bi gi ñuy màggal nag yonent bi la yàlla benn métier la am bu doon dafa am métier benn métier muy métier mi nga xamante ni moom ci la sax di ci nekk di ci liggéey di ci xëy di ci gont di ci fanaan am yàlla ak i malaikaam ndax daf ni inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi man day ak samay gaa ñu ne ko sa yan gaa mu ne almalaykatu ñu ne ko lu tax nga jël malayka yi bàyyi nit ak jinni mu ne almalaykatu hum ajsaamun maxluqaatun min nuurin laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun malayka yi yàlla nee na dama leen a bind ci benn jëmm ci leer du ñu nelaw du ñu sangu du ñu gaanuwaay du ñu sëy amuñu benn programme yàlla ni kon man am naa jot na ànd ak ñoom ñu sax di julli ci yonent yàlla muhammad mu ne nag yaa ayyuha allazina waa dairatul iman sallu alayhi waaye wa sallimu taslima julli leen ci moom waaye bu ngeen paree na ngeen sëlmal moo tax gàmm ku ne bidaa la da ngaa jàngul yonent bi chaque altine da daan woor ñu ne ko lu tax nga daan woor lu tax ngay woor yaa rasulaay mu ne damay màggal bis bi ma gënee àdduna moo tax altine ci mag ñu baax ñëpp fii senegal du ñu dem tool ngir ormal yonent yàlla Muhammad moo tax surtout naa Fatima doon wax ni sama bisu papa bii di bisu altine képp ku ko ormal ba doo ci xëy sax ko mu nekk sa feet yàlla dina barkeel mag ñëpp ca la dale ca mag ñu baax ña ba léegi avant Cheikh Sidi Hadji Malick altine du ñu dem tool kon au passage ñu ngi nuyu suñu mbokku waa Waalo yëpp waa Ndimb waa Malla waa Ñij waa Joxoor macha allah di nuyu partout nag ku ñuy seetaan Sénégal ñu ngi leen di nuyu kon nag fa tabaarakallaahu bis boobu nag yonent bi doon célébrer chaque altine Sidi Hadji Malick ne mënu ma ko def man chaque altine mm. mënu ma ko def chaque semaine mënu ma ko def chaque weer waaye dinaa ko def chaque at ci benn guddi muy mawlidu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñu burdee fukki fan fukkeel baak benn ñu noppalu fukkeel beeg ñaar di tey guddi tey ñu màggal guddi yontu yàlla Muhammad moo tax mbokkam mu baax ma maam Cheikh Sidi Aji Malick ne ko taazimuhu bi sunnatin yaquduna lil janna dinaa màggal guddi yontu yàlla Muhammad waaye dinaa ko teg ci sunna fa tabarakallahu ba man du ma rax daray sunna kon nag yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Sidi Aji Malick si radiyallahu anhu nañu lool kontaan nañ ñu ngi ñaanal ñëpp ñu ñëw ci jàmm pèlerin yi delluwaat ci jàmm ci barki yonent bi ñuy ñaanal site bi it yal na yàlla defal leen jàmm ah macha allah ba ngeen am dem ba am ay télévision ci barki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barki yonent bi jërëjëf sukura. jërëjëf kontaan